Assalamu asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi seen football tv nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo pour ñi nga xamante chaîne ma leen wax welcome bienvenue abonné leen cliquer leen ci cloche bo ngeen gis vidéo bu ndugal nga mën ko seetaan bu leen fàtte tamit une vidéo c'est très important mbokk internet yi mauvaise nouvelle pour euh, Kerpen Diatta est-ce qu'il va jouer la wax parce que blessé au genou dafa génn ci sen match bi xam ne ñu ngi doon jàmmaarloo ak le Havre xam nga mu nekk benn match xam ne il est titulaire piston euh, moom comme Ismaïla Jakobs coéquipier mais euh, duñ ko gis mu génn sur blessure bu féké nak blessure dafa continuer ñep xam nañ né match yi di ñëw nii ni Aliou Cissé ki mu titulaire au poste de latéral droit c'est Krépin Diatta si il est blessé en l'absence aussi de Sabaly na Aliou Cissé bàyyi li muy def tawoo kii di Bouna Sarr bi xamante ne tey dafa titulaire un très bon match il a failli même double benn but benn occasion donc tey dañ ko jox confiance titulaire depuis un un bon moment li mu am si temps de jeu amu ko sax si Nagelsmann donc qui euh, di Thomas Tuchel force de constater que mon ngi jox cas ngi jox temps de jeu même que top nañu en coupe euh, mon cas koy en Ligue des champions mon deuxième mi-temps bokk na liste bi et tout donc li mu am si temps de jeu Aliou Cissé moo bu ko si Coupe d'Afrique d'Afrique bële ba mu jëm coupe d'Afrique ba def coupe d'Afrique bi mu def moi boobu amul woon temps de jeu on a besoin d'un joueur expérimenté au poste de latéral droit et bon, ça franchement c'est le moo c'est le choix numéro un des Sénégalais quoi boo xoolee loolu jour def naa live benn sondage à peu près Sénégalais yi nan lañ ka lañ bëgg gis au poste de latéral droit bah, leen dama leen bàyyi ñu tànnal seen mais si samay commentaires yëpp ñëpp ñëpp dañu doon mais non amna na ñu koy wax mais Bouna Sarr la gën wax moy choix numéro un en termes d'expérience en termes de jeu en termes de football en termes de tout xam donc il connaît les coéquipiers c'est un bagarreur c'est un gars qui xam ne offensivement parlant Madame sur tous les points sur tous les aspects du football au poste de latéral droit les Sénégalais franchement qui nous tendent c'est c'est Bouna donc euh, on n'a pas compris de convoquer 26 joueurs euh, convoquer euh, Bouna Sarr parce que même le non, non non non xam nga non, Gantouaz gantoise ba day machine ko waroon a testé testé woo occasion en pour nga tester, des fois Formose c'est vrai que mon na droit mais axe force de constater que du côté de Lorient avant même Darmian ak je ne dont lire au poste de latéral droit mais bon ça moi fi moi fi tous les critères Madame, critères yi faut remplir que ça soit attaque que ça soit expérience que ça soit en termes de dégo automatisme avec Ismaël Sarr que ça soit même au profit même des joueurs de ses collègues y a joueurs ils veulent voir Bouna Sarr de retour en équipe nationale du Sénégal Je yi ñoom ñëpp a bëgg mu parce que xam nañ ne am talent bi am na mën bi am na gëm-gëm bi am na un mental fort il a tout pour mën ñëw prétendre nekk place bi waxaguñu ne nag c'est officiel pour Krépin Diatta du jouer du xam nga dafa blessé mais dañu pour man problème noonu pour Aliou Cissé pour convoquer qui euh, di euh, kii di suñu gaynde parce que Krépin Diatta blessure nga war ko teg poste en bu xam ne moins un Krépin maintenant amoindri maanaam bu di jouer avec soixante de ses moyens je préfère avoir un Bouna Sarr bi xamante il est au top il est titulaire dernièrement et devant Noah Fadiga c'est c'est Bouna Sarr quoi des Sénégalais yi moom tane tànn donc Aliou Cissé bu fekkee yaa ngi ñuy bàyyi xel yaa ngi ñuy déglu yaa ngi seetaan seen football TV ngir yàlla woo ñu Bouna Sarr sur ce match là même si c'est un match boo xamante ne normalement benn Noa benn forme sans sans franchement Soudan du Sud c'est assez faible quand même même si que huis clos ngay joué affaire yooyu noonu euh, Soudan du Sud c'est très faible donc comme que c'est très faible nag donc euh, c'est à Aliou Cissé de prendre des décisions yu xamante ne fort soit. tu, tu décides de ne pas woo oh, woo kii Bouna Sarr mais au moins meen benn no waa oh, sur un sedan di chute ko loolu ak stade bi kan fa nekk meen un non Afrique mais bu feesoon del non Afrique bu xamoon naa loolu dina ko transcender parce que Sénégalais bi dañoo amoon benn attente ci moom euh, pour kii que euh, pour booster ko euh, mu joué malheureusement à huis clos Aliou Cissé ndax moom lay teg ndax du ko teg là est la question mais ba kii mu génnee nii Krépin Diatta c'est inquiétant c'est inquiétant. Et que comme que c'est inquiétant, pour moi, le profil idéal pour remplacer Kidi, euh, quelqu'un y à on parle en Ligue nationale parce que euh, c'est le 18, le premier match, ben, le 21, contre Soudan du Sud, moi, le 18, puis Stade met abdallah, ben, il fait que Togo. Donc, c'est à lui de prendre une décision big et que décision big c'est kii di Bouna Sarr selon vous nag avis si la la commentaire wax leen ma seen xalaat seen gis-gis dem leen aussi suñu yeneen plateforme yi dooleel bu baax a baax lii di X muy Twitter lii di Instagram lii di TikTok boo ñu tapee Senfootball TV incha allah dañuy gis seen logo bi jaajëfal naa leen wax leen ba beneen sur Senfootball TV.